mat sëkk yomb moo tax mu wax ni fii ñu jëm nit ñi fonk ñu yéwén yéwén mooy nangoo bàyyi keneen jël bu ko defee noonu rek xool benn place benn place lañ am parce que fi mu ku jóg ku jël sàmm ne Macky kon nag comme moo nekk suñu kanam ñun ñëpp dañ fay yéegee nam gën a rafete nam gën a baaxe mooy wax waaye xëcco bi bëree rek di jàpp moo tax li may bañ ëllëg mooy Assane Diop xanaa nekk foo woon parce que nag mag loolu lay jëriñ kon nañ jéem dal dal bi buñ ko defee nekkee doole mooy ñëpp liggéey bi rafet ci terrain bi waaye bu ñu ko defee noo xam ne ci terrain bi day soox dafay métti moo tax man day man naa ñaan man nañ ma def commission des sages ma jëm ku yàq ma dox lu jafe ma dox lu ma mën def ci. premier vice coordinateur monsieur Bada man jébbalaal la ko yéene bi rafet wax dëgg yàlla yëg la ak yéene ma delloo la boobu nga nangul ma jox commission de stage man ma nekk jaamu askan bi jaamu liggéey bi jaamu waxtaan